waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Babacar Diop président mouvement jàppal ma jàpp ah, ma bokk commité directeur bu parti démocrate sénégalais ah, ma nekk ndaw boo xamante ni man dara ñor ma lu dul parti bi ndax da tey boo gisee taxawaay bii ñu taxaw ah, man responsable la fii Dakar ki ma taxawal nii responsable la Touba pour wane na ñun PDS ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dara ñoruñu lu dul naa jëlee Macky Sall si palais bi dugal fa Karim waaw ah, bientôt nga Karim Wade di fa gis yàggatul ah, Karim moom incha dina ñëw te xam naa li fiy jëlee Macky moom Karim Wade lay doon waaw waaw sa question bi allez-y dama ni bientôt dama ni Macky dina fi jóge te bu fi jógee Karim Wade moo ko fiy jëlee waaw loolu yàggatul non ku ñëwul kay doo fi mën a jëlee nit retour bu ma la waxee dina fi jëlee kay mooy dina ñëw waaw loolu kay yàggatul waaw. waaw ñun am nañu suñuy fem ñun duñ ko wax dañuy xam ba dañuy bàyyi ba mu wóor na ma ni war nañ ko wax ñu wax ko mais pour l'instant ki nga xamante ni mooy amul programme mooy Macky Sall te programme bu mu wax nit ki nit ñi. séentul si ginnaaw ñàkk wax dëgg la kon nag ñun suñu programme ñu dañuy bàyyi ba mu wóor na ni ñor nañu dog ko wax ñun waxaguñu suñu programme léegi tournée yi muy def tournée tappale la fa mu demoon di fa tournée tournée économie yu mu def fa mu defoon di fa tournée yëpp jaaroon na fa ku si lekk wax na la la la ba mu taxawee la ma waxoon yëpp dara amu ci kon mooy président bi nga xamante ne Afrique mooy du wax dëgg du wax dëgg ñàkk bañ a wax dëgg bi mooy Macky Sall mooy numéro mooy Afrique président yi gën a yées Afrique Macky Sall mooy numéro un man Babacar Diop laa tudd. président mouvement jàppal ma jàpp waaw. da koy politiquer lu mu def da koy politiquer te la muy def lépp si njuuj njaaj la waaw njuuj njaaj daal mooy numéro un ku jàkk njuuj njaaj si Sénégal Macky Sall mooy numéro un waaw. waaw ñu gis li nga xamante ne boobu ak léegi li kii bi dama wax sànq duggee. Mhm. mooy ki nga xamante ne mooy seen leader Karim Meïssa Wade dégg ñu ko ci dara tekkaaral gi bari ba tey ngeen ñëw di lancer waat beneen affaire. kooku amul du du bëriwul wax kooku borom noppeeg jëf la. Mhm. kooku jëfam moo ëpp waxam. kooku du wax wax bu bëri. wax bu bëri nag comme ki moom télé yi moom rajo yi mooy Macky Sall njabootam nañ ko bàyyi ak ñoom ñun nag jëf lañu am. waaw ku dul ñun jëfkat la ñu am waxkatu dëgg la ñu am yoruñu koo xam ne nag du jëf wax dëgg mhm. ñun suñu leader waxkatu dëgg la waaw ñun bokkuñu leader boo xam ne amuñu président boo xamante ni la mu wax tey suba mu génn si mhm. waaw mais ñu xool ne nañ tiitaange tuuti ne président Macky Sall dina posé troisième mandat waaw non bu xam nga bëgg na ko te ñemewoo ko naka déclaré bu ko déclaré dina xam ne lépp dëgg la wul nit ñu yab boo xam ne dina ne ni troisième mandat la soxla loolu moom xam na ne yabewul nit ñu noonu fu mu nekk day jiima jaar ay focus ak yooyu mais lu mu wiiri wiiri fa la jëm te bu ko defee jour boobu lay génn si pale waaw man maay première ki njëkk a déclaré déggoo li ma la wax man Babacar Diop laa tudd président mouvement jàppal ma jàpp bu ko defee palais ba dafa fanaan bu njëkkee déclaré ni du fan day def troisième mandat du fanaan si palais bi xaw ma si micro bi nga may gisee xaw ma si micro bi nga may gisee mais boo ko déclaré doo fanaan si palais bi sama loxo si kaw askan Sénégal mi ngi jànkonteel ay ministres yu bëree bëri ku ci mel ne femme bi jóge fii mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. na muy def seen réew nangu seen dëkkuwaay situation yi pare na pour bu bu dem benn pour ma pour ma njëkkee la si Covid bi mooy président boo xam ne dañ ko dañ ko nattal mille milliards mille milliards yi mu sàcc ko mill milliards yi daf ko saaj léegi na wax mille milliards yi fan la ko dugal lu toll ni Fouta moom Fouta lay tiitaroo Fouta amul université loolu gàcceem la mooy la lay wax la ma la muy wax yëpp dara du si dëgg mooy président bi nga xam ne moo dàq wax lu dul dëgg si àdduna bi mooy Macky Sall mooy numéro lu mu la wax làqal si ginnaaw am na leneen lu ci bokk. seen gouvernement bu bees fal Idrissa Seck fal Antoine Diome wàcce ñi fi nekkoon. dama ne ñooñu ñëpp ay taalibeem lañu ay Antoine Diome yooyu yëpp taalibe Macky Sall ay Antoine Diome nga xam ne moom dañ ko fi teg pour muy liggéey nit ñi. loolu la kese la mag Idriss Seck Idriss Seck moom jarul tudd ay turam ndaxte kooku ba mu waxee mburok soow la pare mburok soow moom dangay ngay ànd naan soow mi wala nga ànd tuur ko rek kooku doon mu du ku baax kon nag kook jarul jël exemple si moom waaw li ma la mën a xamal daal mooy li gàtt te leer président bu baax si réew mi Karim Wade la tudd doomu Ablaye Wade mii ñu nekk ñu nekk ay militant yu wér te wóor suñu parti bi boo gisee ni ñu fi taxaw nii yëpp ay gor rek nga fi gis ndax dañoo nekk si moment boo xam ne café bu amul suukar la ku fi ñëw rek ngor moo la fi bàyyi ak bëgg bi nga bëgg Ablaye Wade bëgg bi nga bëgg Karim Wade bëgg bi nga bëgg Sénégal changé kon kooku ñooñu kenn amul seen fay leneen li si topp nag ñun duñu dugg si ay kaar ñu ñuy fay ñu fi ñëw yëpp yaa leen gis ñooy wàcceel seen bopp tax ñooy fayal seen bopp Macky Sall bu doon woote tey mobilisation lay def di fay ni jox ni ñi ay kaar ay paas di jox ay sandis fii ku fi bëgg a sandis jaakatu baa ngi moo koy jënd yaa koy jëndal sa bopp fii ay góor rek ñoo fi nekk kon nag ay militant loo xam ay militant yoo xam ne lañu ay militants yu engage lañu yu bëgg a parti bi yoo xam ne parti bee leen jaral lu nekk ñun nag coow li mën na bañ a bëri ñun dañu am président boo xam ne mooy li ma la wax léegi day borom noppi ak jëf la ñun nag si si loolu la ñuy yaree bu bu jëf jotee nag ñun ñoo koy defal suñu bopp Macky Sall lu koy xaar mooy na wax ni troisième mandat la soxla bu ko waxee bu ko waxee 6 heures 7 heures dina ko jël dina yónni si palais bi man maa ko wax man Babacar Diop laa tudd dama bëgg nag la may wax waxewu ma ko tur kenn nag sama tur laa ko waxee Babacar laa tudd Diop laa sant dama ni Macky Sall bu déclaré ni troisième mandat dina ko def bu ko déclaré 6 heures timis du ko fekk si palais bi maa la wax loolu mhm. waaw ñu gis euh, mu jënd benn avion bu bees def si beaucoup de xaalis boo xamante ne Sénégal yi bari ñu koy naxaru gis si loolu mooy mooy si donkaa si lay ji ma nekk rek mhm. moom lu ko neex rek lu neex famem lu neex njabootam sàcc xaalisu nit ñi di def lu ko neex ñun nag Sénégal dafa toll foo xamante ni fu mu nekk nii boo dimbaliwul nit ñi waroo jël seen alal di ko di ko di ko di ko saax saaxe ndaxte tey nit ñi dañoo sonn boo demee si kër yi tey am nañu kër yoo xamante ni tey bu ñu añee du ñu reer wala bu ñu reer bu ñu añee dañuy togg reer dañuy dañuy sóoraale reer loolu ñàkk la tey ba barki dem boo gisee keroog nit ñi di génn di dugg si osaan yi di sàcc ay lekk. Mhm. loolu defet la defet weesuwul loolu. kon loolu mooy wane ni dëkk bi doxul bu fekkoon ni dëkk bi dox na kon nit ñi du ñu dem fenn di sàcc ay lekk. mun nañu sàcc leneen mais pas yooyu yëpp Macky Sall moom moo ko moo ko moo ko moo poussé nit ñi. mais organisé benn forum boo xamante ne pour jàppale ndaw ñi si mu mënul jàppale kenn la ma la wax dama ni ba mu ko waxee ba léegi ah, da danga gis mu jàppale kenn nax na leen jim na leen baab wax leen lii te la muy wax dara du si dëgg waaw. la muy wax dara du si dëgg mooy numéro un waaw.